asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi dellu si waat nañu fas yéene ànd ak sëriñ Cheikh Mbàkkum sëriñ Abdou Latif ci ndigalul Cheikh Mamadul Muntaxa xaadimu rasul ay kàddu yoo xam ne day jaar ci sëriñ Cheikh Mbàkkum sëriñ Abdou jëm ci daayira yi nga xam ne dañuy bàyyikoo fu ne di ñëw di siyaare si bi kàddu yooyu sëriñ Cheikh Mbàkke am kàddu yu mu ciy wax yu jóge ci sëriñ bi ba noppee ñu jox sëriñ Maam Mor Mbàkke mi nga xam ne bokk na ci ñi dalal daayira yi mu àggale wax ji kon nu ànd déglu Serigne Cheikh Mbacke Serigne Abdou Latif. ñoo ngi nuyu bokki taalibe yëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha niñ leen ko baaxoo waxee rek Serigne Mountakha yéene ji mu am ci ànd ak taalibe Serigne Touba yi liggéeyal Serigne Touba ak xam gi xamit yéene ji taalibe yi am ci ànd ak moom ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ñaar yooyu dafa daje ci moom te sori ci moom lool waxtu wu nekk ñi xam yéeneem ak cofeelam ci taalibe yi waaye ñi gën a xam itam yéeney taalibe yi ak seen cofeel ci Seex Mamadu biir loolu cant li nga xam cant gi nga xam ne sëñ Muntaxa waxtu wu ne mi ngi koy sant lu taalibe yi ci gis sawar gi sawar ci ànd ak moom ab liggéey loolu day wax waxtu wu ab soññee la ci am moom ci boppam da ciy soññi boppam ci gis ne taalibe yi day doyloo nañ ko bëgg nañ ko yéene nañ ko an ndam bëgg nañu ànd ak moom liggéey bi moom it waxtu wu ne mu di wax ne nan koy santal taalibe yi di di di di jottil taalibe yi ñu xam ne xam na bu baax seen xol ak seen yéene ci ànd ak moom liggéey bi fi mu liñ ci daa bëgg a dolli ci ay kàddu nag yàgg nañ ko cee wax waaye léegi nii rek fi ma toogoon sëriñ bi yónnee waan na ci man ndaw ci man mu woo ma soññaat ma kàddu yii mi bëgg a wax sëriñ mu taxaa day wax ne mbir lu mu rëy rëy boo ko nasee rek mu dem waaye lu mu tuuti boo ko am amutum nas du mën a sotti lu mën a doon dañ koy nas kon nas bi tey mi ngi jëm ci doxinu ni ñuy ni daayira te loolu wax naa ci ay yoon ci rajo ak télé yi ñu gis ko xanaa kay daa fekk ne doomu aadama moo baaxoo fàtte fàtte nag moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne nañuy fàttali jullit yi buñ leen fàttalee dana leen amal njariñ fàttalik tey gi nag dafa jëm ci doxinu ni ñuy tërale ni ñuy doxee ci daayira yi waxoon nañ ko fi ay jamono ba waxoon ay bis ak i waxtu yoo xam ne ci lañu war a siyaare ba waxoon booba ne alxames ak ajjuma na doon Tuuba ak li ko wër gaaw ak dibéer na doon Ndakaaru ak dëkk yi sori yi altine ñu bàyyil ko fi kilifa yi am ay délégation xëy na tuuti soppi ko na ci mooy alxames ji dafa fekk si talaata ji àllarba ji kon ajjuma gaaw dibéer altine mooy bisi siyaar yi yooyu nag liñ ci njëkk a fàttali mooy ba léegi noo ngi sàkku ajjuma ji buñ ko mane ñu bàyyee ko waa Touba gaaw beg bég ji def ko dëkk yu sori yi altine ji ñu def ko ñu jagleel ko délégation yi ak kilifa yi waaye ci kaw nag na muy tëdde na muy tëdde mooy daayira bu bëgg ñëw da woote danañ la jox numéro yi nga xam ne ci lañ war a wootee danañ ko joxe léegi membre la ko wax ñu tàmbalee ci nekk ku ñëw te woote woo ci numéro yooyu boo egsee door a woote boo ñëwee bis boobu doo mën a siyaare koo xam ne itam fa war a jóge natt nga ba xam ne mbir yi du la fekk ci biir kër sëñ Tuubaa gi bàyyi ko ba ca ëllëg ku ñëwati ginnaaw trois heures doo mën a gis sëñ bi te waxoon naa ko boobu ba àggoon ci ne képp ku ko def na nga xam ne loo ci ñàkkit yaa ko xañ sa bopp waaye kenn xañu ko ndax da ngaa déggut ndigal lañ joxe woon sëñ bi léegi la waxaan ne nañ fàttaliwaat ndigal yi mi ngi tàmbalee ci bis yi mu ñaanal boppam di nekk daaru minam muy talaata ak àllarba alxames ñu may ko ko bàyyee ko ko mu def ci soxlay këram ak ay wéetaay këram ak comme soxla woo ci wax yow waaye ba fi mu ne benn bisub talaata da dem daaru minam wala bisub alxames mu gën a xat fii ci ay daayira bisub set nag ma wax nit ne ko man de daara mi nam duma fa dem yóbbu kenn ndax xam naa ne gënalul sëriñ bi te lu gënalul sëriñ bi man duma ko def kii damaa jàpp ne ñàkk xam la waaye ku jóg ngir wut si ngërëmul sëriñ bi xanaa doo def lu gënalul sëriñ bi te sëriñ bi de fu ko waay a fekk furu ci kër sëriñ Tuubaa kii ci saa néegu nuyookaay bii mu jàppee liggéeyukaay bi gëm naa ne sëñ Tuubaa day ku jóg ngir moom ba jàkkaaru sëñ Muntaxaa la nga doon wut da ci am loo ci am waaye boo ko fekkee ci liggéeyukaay bi gëm naa ne la ngay am fa lay ndax ci moom ci boppam léeg-léeg nga ne ko diw nangam mu ne nan dem ca liggéeyukaay ba kon moom daa gëm ne saal bii mooy liggéeyukaay bi mu war a dajeeg taalib yi ak daayira yi kon nan ko fekkee ci li mbëgg bëgg ngir yàlla bis bu set nag man danaa wax ne daara mbiram du ma fa yóbbu daayira saal bii nu nekk misaalu sëñ Moussa Bassirou bi sax du ma fenti daayira xanaa daayira boo xam ne yaako ñaan sëñ bi sëñ bi ruus la may la ko day bu ñëwee mu ñëw fi te loolu am na daayira bi fi mu ci ñëw am na bu ko jiitu boo xam ne bi muy wàcc bunt bi bi mu wàccee neenama na waxoon naa la nañuy dem ci liggéeyukaay ba ma ne ko dañ maa wax ne may yaa ko may ñii man nag buñ ma tudd buñ tuddoon sa tudd ma fi ñëw ndax xam naa ne gënalu la lu gënalu ma la ko teg mu ne ah wax dëgg gënalu ma de kon nag xamanoon nañ gënaluñ ko nañuy ñëw ci barabu liggéeyukaayam bii mu woo taalibe yi te kuy ñëw woote bu defee nun ñii jël daayira yi danañ seet lim boo xam ne dana danañ xam ne lim bi bu ñëwee danañ mën a gisandoo sëñ bi ndax bu ñu wootee wut bokk na ca la muy juraat bu daayira yi ëppee sëñ bi bu demee bënta ñàkk jóg waajal tàkkusaan day jóg waajal tàkkusaan bàyyi ma fa man mu xeebu mii te xam nañ ne yéen ñëpp ñëw gis sëñ bi leen dàqal waaye nañ ko teg ci yoon nañu ñëw ku fi mi di fekk daal incha allahu balaa trois heures ba trois heures et demi da gis sëñ bi ci bu boo ñëpp respecté li leen di wax ñi nga xam ne woote nañ ci numéro yi ñi yor programme bi xool ñaata daayira lañ mën a jël bis ba trois heures diggante une heure et demie la bi julli deux heures moins quart ba deux heures dana tàmbali ba trois heures et demi lañ fa mën a jël nag bu ñu ko jëlee sëñ bi dana fatu ji ku génn ca sart booba nag boo ñëwee gisoo sëñ bi wala ne kenn tee ma gis sëñ bi te itam ñaar misaal mu gàtt lay joxe benn murit buñ ne yaa gën a jege sëñ bi waa kër Seex Mawlud Moustapha al doo ko ñeme doo ñemee ne waaw benn murit buñ ne yaa gën a jege waa kër maam Thierno Ibrahima Ibrahima Fati sëñ bi doo ñeme ne waaw te ñoom de kenn ku ci nekk ba nga bëggee ñëw da nga maa woo ma wax la ne la sëñ bi lii la bëgg ci kër gii la ko bëgg ak waxtu wii nga ne ma na ko sëñ bi bëggee nañ ko defee noonu waa kër Cheikh Moustapha ñëwaguñ te bëgg dem laaj ko sëñ Ousmane Mbacké fii lañ jaar ma ne ma kon nan ñëw kër sëñ Touba gii fi ko sëñ bëggee defee ko ni ko sëñ bi santaane loolu noonu la sëñ Amadou Mokhtar wax kon nag yaakaar naa beneen taali bu nekk bu ñu la nee sëñ bi nii la ko bëggee wutaat ca xeej bay forcé dafekk sëñ bi daara mi ne wala di ko sonal lool xel fekki wu ko xel mu rafet fekki wu ko du ma ci ñemee tudd nag ak ñàkk Pastef ndax wu maa tudd kenn ñàkk Pastef waaye daal Pastef bi daal gëm naa ne mi ngi ëppee ci ni ko sëñ bëggee ñu di ko defee boobaa luñ ci sàkku si mu yombul loolu mooy kàddu yi ñu yónni woon mu war ko jottali maam Mor dana ci jottali yeneen kàddu yi mu ci war a teg waaye nañuy woote nañuy sàmmonteeg li ñu leen di wax nañ sàmmonteeg bis yi nañ sàmmonteeg waxtu yi sëñ nañ ko dimbali bu kenn fekk daal mi nam ci ab daayira rawaat na talaata àllarba alxames ñii xëy di ko fa jàtt sax ci mbaarum maam jaara nañ ko bàyyi nañu ñëw fii ñëpp di ñëw man de sama bopp naa mën naa joxe misaal dem naa kër sëñ saaliw fekk mbaar mu fees dell ki ma àndal ne ma nan jaare ci buntu bi jaar ci ginnaaw dañoo ñëw ba ci bunt bi ma ne kooka ëpp ëppalee suñ bopp murit yee mbaar may xat-xatloo nan dañoo jàpp ëpp nañ ay taalibe sëñ Tuubaa bëgg na taalibe sëñ Tuubaa mënu bàyyi fii kon lisaati bi Sëñ Tuubaa def nan ko def nan jaari ci mbaar ma fa mbooloo ma bañ àggee lanu Sëñ bi seet na ma sëkk nee na ma boo léegi del jaar ci ginnaaw ñëw ci biir ma xam damaa seet ab cër bu réy rek bu ma jomb waaye mag taalibe yooyu ñu taalibe yëpp ya fa nekkoon ñëpp ma gën ëpp ma pasé kon dañuy jaar fi taalibe yi jaar bu ñu bëggee am di taalibe yi am man de li Sëñ bi seet taalibe yi ci laa bëgg bëgguma leen loolu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu gannaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi wa salaam sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, ñi ngi sant baax di am mbégte gannaaw kàdd yi nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif di suñu jëwrin di jëwrin liggéey bi yëkkati na ko mu bàyyeekoo ci euh, kilifa gu baax gi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy Serigne Touba mu wàcc ci jëmmam ji ndax sëriñ bi dafa wax ne. dafa euh, ndigal lii nga xam ne joxe na ko mu ñëw ci Serigne Cheikh Serigne Cheikh wax ko mbokk taalibe yëpp loolu bëgg na ñëpp sukkandiku ci ñëpp bàyyi ci xel ndax Serigne bi dafa am ñoo xam ne àgg na leen foo xam ne wala jege na leen jege goo xam ne maanaam léeg-léeg ñu ñaan ko loo xam ne maanaam mënu leen koo bañal te loolee waral na Serigne bi dafa daf caa dolli ne jëriñ ñoom jëwriñu liggéey bi benn rek la rawatina jëwriñ muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif mii képp koo xam ne maanaam da nga fay war a indi délégation wala ab daayra wala lu mu mën a doon nanga jaar ci Serigne Cheikh mii waxtaan ceeg moom ba mu utal la aw bis wala mu wax la fan ngay fekk sëriñ bi waaye moo gën ngay ñaaj dem ci sëriñ bi wax loo xam ne mënula ko gàntalal ba tax na mu nangul la ko te fekk na nekk lu ko gënal kon loolu amul solo waaye ni ko Serigne waxee rek. bis yi nañ ci bàyyi xel ajjuma samedi dimanche altine mooy bisu liggéey yi kon bépp daayira boo xam ne dangay ngay jugati ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba ngir eh, ngir siyaari sëriñ bi numéro yii boo ci wootee danañ la teg ci aw yoon ba wax la ban bis ngay ñëw ak nan ngay def ba boo agsee ñu mën laa dalal ci jàmm bi ci jiitu mooy sëriñ xam Abdou Mbacké boo ko wooyee ci 77 576 58

bépp taalibe wala bépp daayira wala bépp délégation boo xam ne jug nga ngir ñëw ci sëriñ bi boo ci wootee danañ la teg ci aw yoon wax la nan nga war a mën a def ba doo am benn coono baak ci sëriñ bi gis ko ci jàmm ak salaam ba delluwaat ci jàmm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mamor jërëjëf sëriñ Cheikh Mbakoum Sëriñ Latif kon bokk yi ndigal laa ngi noonu lii mooy li nga xam ne ñi la ko sëriñ bi bëggee nañ nañ bu ñu bëggee am nu itam li nu bëgg nan fexe matal bëggu sëriñ bi mooy li nga xam ne mooy mooy moo ni may suñu bëgg ajjuma samedi dimanche altine mooy bési liggéey yi bés yi ci des ñu bàyyi ko ak boppam ak boroomam jërë ngeen jëf.